adduna bi dafa toll foo xam ni jàmm boo koy ut doonatul rekk sa biir kër doonatul sa biir dëkk doonatul sa biir réew da koy ut utaaleel ko say dëkkandoo mooy ñi nga xam ne bokk leen réew ndax adduna bi moo toll foofu lépp loo xam ni am na fenn dafay law ba ci yeneen dëkk yi yalla def nak euh, président Macky Sall depuis 2013 mu ne dafa bëgg Dakar doon dëkku jamm Dakar doon dëkku kaaraange ñu fi dajalé nak ay borom xam-xam gis ngeen fi ño xamni ci l'armée lañ joggé donc ay problème de sécurité mën nañ ci wax yeen acteuru presse bi ci ngeen bok war ngeen wax ci problème de sécurité dinañ fi dajalé ay magistrats dajalé fi ay professeurs d'université dajale fi ay acteurs politiques ndax yenn saa yi am na ay jafe-jafe yoo xam ne ci ñoom lay jógee dajale fi ay acteurs société civile société civile au sens large mën na doon kilifa aada kilifa diine ñoo ñëpp bu ñu leen boolee ñu xool la nga xam ni am na ci Afrique tey di gàllankoor bu mag ci wàllu développement ndax mënoo wax développement te lépp loo xam ne jàmm ak kaaraange réglé woo ko boo ko réglé wulee doo xëy liggéeyi wala doo xëy tal ñu fexe ñu waxtaan ci ku nekk wax sa expérience ku nekk wax sa gis-gis ku nekk wax sa xalat. ñu tënk xam-xam yoyu organisation yi nga xam am nañ ko au niveau ci Afrique mo xam CDAO la mo xam euh, Union africaine la wala ci cadre bu gën a yaatu di Nations Unies wala sax suñu diggante ak yeneen partenaires yu melni ay Union européenne wala ay Banque mondiale ñu xool ci opération de financement yi ni ñuy fexé def ba xam-xam yi nga xam ni juddu na fi ñu mën ko tas pour que réew yëpp mën ci jariñu pour que askan yëpp mën ci jariñu loolu mooy li nga xam ni moom la ñuy waajal nii ren nag li ñuy wax mooy défi multilatéralisme ndax adduna doole yi yemul am na ñoo xam ne am nañu doole boo xam ne xëy na mën nañu aar seen bopp te même loolu tey jii xam-xam ak jëfale ni wane na ni loolu mëntu nekk ni ñuy fexe ba changer muy multilatéralisme maanaam ku nekk ñu fexe ñu ñëpp ànd la ñu am mu bari mu tuuti

Euh, Burkina Faso def noonu ñeneen ñi nga xamni ne gën nañoo sori moy ñoo xamni ñu ngi càdd loolu buñ bu ñu ko boolee danoon xam-xam bo xamni dina mëna jappalé euh, gouvernement bi dina mëna jappalé jàppale njiitu réew yi ñu mëna xam ci walu terrorisme surtout yan pexé lañ ci mëna def ba safara ko gis nañ ni du doole rek mo koy safara gis nañ ni du waxtaan rek mo koy safara gis nañ ni il faut d'autres solutions motax tax ñu dajale borom xam-xam yoyu yëpp ñu leen di ñaan nak ngeen japp ci

ak kaaraange mën a dellu si ci Afrique yëpp.